salaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, di ñëw ak yéen ci waxtaan wu gàtt rekk ci actualité national yaakaar naa ne sama naataango Ayib Daffé li mu wax doy na sëkk mënoon nañu fi yemale conférence de presse bi wala point de presse bi mais xëy na ñu sof ci tuuti rek euh, xuus suuti ci yenn détails yi toj-toj yi nga xamante ne nii waa coalition toj-toj bëgg nañ euh, def nañ ko fi ba pare bëgg walbatiku ne kenn du ko fi leerale laataa loolu nag dama bëggoon a saluer liggéey bu mucc ay bi nga xam ni commission nationale d'investiture def na ko ci présidence su Ousmane Sonko. waaye ànd ci ak mbooleem responsable Pastef fii nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew yéen journalistes yi biir na ma ne umpul leen ñeneen ñi ñuy defaree seeni list am na fa liste boo xam ne bañ koy defar sax am na ñaari leader yu commencé woon xeex bañ àtte leen waaw eh, lu leer la nag te ñun dañu togg réuniru président Ousmane Sonko wax ñu ni mu xalaatee ne noonu la ñu war a demee ci élection yi coordonnateur départementaux yi fa nekkoon yëpp daan na ñun li ñu defal ci tànneefu Bassirou Diomaye jaxaar fay président de la République doy nañu sëkk mën nañ laa bàyyi nga defar liste bi mu ne déedéet nan def nañ ko daan defee doxal démocratie na baas bi proposé kon ñu delloo yëf yi base bi base bi proposé fu ñu am consensus ñu indi proposé ne nii la fu ñu amul consensus ñu indi lépp def PV bi teg après commission d'investi def investigation yi mu def ba tànn ñëpp nag mënoon nañ nekk valablement ci liste yi waaye xam nañ ne 165 députés la ñu soxla ba tax na ku tànn di nga am loo bàyyi waaye may wax rek ni. bu ñu réere mbukk mbir li nga xam ne mooy ay prince bu parti Pastef mooy ñun ñëpp ku ci nekk am na foo mën a liggéeyalee parti bi am na foo mën a liggéeyalee réew mi waaye kenn du xëcc ci mbir ba mu jaral la nga ci ñaaw ba tax na xëy na tànneef yi dina am ñoo xam ne amoon nañu yéene teewal seen askan ci fee nga xam ne mooy pencum ndawi askan wi waaye yëf yi ni mu demee ak considération yi nga xam ne yëpp dinañ ko xool te ku xool list bi nga xam ne mooy listu Pastef les patriotes nga xam ni Sénégal gowma ne mës na fi am liste boo xam ne am na qualité bii nii ci choix yi mooy représentation géografique bi sociologique bi waaye surtout les minorités les différent corps socio-professionnels maanaam aspect yëpp lu ñu jël mais dafa am beneen aspect bu ci am solo mooy responsable loko yi ñoom lañu wax ne yéen yéen a gën a xam li xew seen gox yéen ay ñëw jëluñu fii ay nit parachuté leen parce que dañuy vote ci dëkk sàngam waaye comme ni ngeen ko xamee mooy dina doon assemblée bi nga xam ne xëy na moyenne d'âge bi mosu fi am ndaw yi dinañ ci teew bu baax a baax a baax a baax donte mixé nañ ko ay ay mag yu am valeur kon askan wi am nañu possibilité am président bi gën premier ministre bi fi mës gën ak assemblée nationale bi fi mës a gën te ku xool mbir mi ni mu demee nga xam ne jamono ji li ñuy waxtaanee mooy ndax 140 cent cinquante wala cent soixante la ñuy am waaye majorité moom alhamdulilah bu élection di am rek te bi yoon dina am ndax ka daan toxal élection yi moom tal na leneen dinaan naan gumba tal na leneen lu dul tëbiteen ba tax na ñi fi nekkoon doon tamante dëmm doon tëjante doon rayante doon exilante ak ñi nga xam ne dañ doon xaar deuxième tour ndax bugguñu ànd ak système bi ñëpp a walbatiku ànd mais jamais le jeu en tout cas euh, politique n'a été aussi clair et tranché désormais ñaari camp rek moo am gis nga élection yi mënoon nañoo def rek tànn ñaari bulletin Pastef ak la ca des opposition maanaam parce que ñoom ñëpp dajaloon nañ ñoom mën mënoon nañoo def benn liste mu jeex parce que ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi caxat caxatee alalu askan wi yemuñu ci di dóor askan wi di tëj yemuñu ci di exiler askan wi yemuñu ci installer benn terreur boo xamante ne nii kiy génn sa kër sax yaa ngi xalaat ndax di nga ñibbiwaat xam nga dañ naan sénégalais dafa gaaw a fàtte mais li fi xew yépp je pense que bu presse bi jékki woon sax def euh, rétrospection rek wala rétrospective dinañu xam ni senegaal bi ñu doon dund yaa de cela mois huit mois jëm kaw ak Sénégal bi yàlla ak yàlli la le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa ñëw indi lu yees pex loo xam ne ñëpp nangu na ne loolu lañ nekk di doxal mi jub jubal jubbanti réew mi nag fekk nañ ko ci anam yoo xam ne jub bi moom du problème ndax yàlla def na ñi ñu teg ci bopp réew mi ak ñi ñu tànn ñu jub lañu jubal bi tamit amul problème fa ñu dajee coono gu métti mooy jubbante bi ci fànn yépp nag ndax xam ngeen ne lii chef de gouvernement bi wax ak ñi mu àndal ci affaire u endettement bi ak yu ni mel li mu ci waxul moo ëpp foofu te ministère des finances ak yeneen ministres yi dinañu génn càmbar ko pàcc par pàcc bu ñu lancé référentiel bi ba pare les ministres ku ci nekk di nga génn wax ci sa secteur pàcc par pàcc pour ngeen comprendre niveau bi bi ñu toll actuellement ci réew mi boo balaa maa dee nag ñu ne waruñu koo wax parce que dañuy tiital ñeneen ñi mais ay kàcc ak i fen ngeen baal ma ci kàddu gi moo ñu dugal ci guute gi mooy yàgg nañ leen wax ni da ngeen di maquiller chiffres yi wax leen nit ñi dëgg ñu bañ te ñun bañ ko doon wax doon joxe ay chiffres te chiffres yu ñu mës a joxe kenn mësukaa dindi waxuma laa nag léegi nag ñu sommes les détenteurs de ces chiffres la kon ngeen war a xam ne lépp luñ ci génne lu leer nàññ la képp kuñ ci woo tamit pour nga leeral xamal ne dossier bañ lay tegal moom xawma lan waaye doo ko teggi parce que nag Pastef loolu la mës a wone avant muy yegsi ci pouvoir rawatina nag tey jii mu yegsi ci pouvoir moo tax ngeen gis opposition bi di tëb di daal di yuuxu ak haine bi mooy d'abord ñi nga xam ne ñoo yoroon caxat caxatee alal bi waaye mooy ba pare seen yéene yëpp moo nekkoon faagaagal président Ousmane Sonko waxuma la ba du nekk candidat waaye xëy na ba du amati njariñ ci àdduna waaye tamit am lenn ci opposition bi loo xamante ne nii ñoo ñooña ñoo yamoon donte ñu ngi ci opposition bi parce que ñoom seen yéene moo nekkoon rek président Ousmane Sonko bu mu bokk ci leen ndax am na si ñoom sax ñu ko seeti di commencé wax pour mu jàppale leen ci ay ci ci ay jamono. en boobu nag transmettre nañ ko ba ci yenn ci ñoo xamante ne ni tey xëy na dañ naan ay journaliste lañ mais jàppatu ma ne ay journaliste lañ te leer na comme dem nañ ba di <laughs> investir ci ay liste xanaa léegi nag dootu leen leen défendre ci ay délit d'opinion ak yu ni mel. da ngeen leen war a seppi ba mu set parce que dañuy yàq seen der loolu mooy dëgg du ma ñëw ci li euh, ay wax ci wàllum bulletin yi parce que ñoom alalu askan wi ak coonoy askan wi au contraire buñ sañoon mbir yi day gën a tar ba Sénégal nekk dans le chaos total bu ko defee ñu ne voilà échoué na ñoom conception boobu la ñu am ci politique te fépp foo xam ne jaar nañ fa muy ministère muy direction def nañ fa loo xam ne balaa nga koy réparer dama leen di jox benn benn misaal Dakar dem dikk xam ñaata employé lañu fa def deux mille huit cent quatorze CDI déglu leen baax li may wax ak trois cent vingt sept boo ko boolee mii trois mille cent vingt deux te moo ne bi ñu bëggee yóbbu bus yi ci tabaski dañoo obligé jëli ay militaires ndax chauffeurs yu doyul est-ce ngi dégg li may wax. waa personnel boobu ñan la te ñëpp ay yi lañ am nag toog ndax directeur bu ñëw yóbbu frigo indi ay nitam directeur bu ñëw yóbbu finalement congélo yu fees chambre froide yu fees lépp fees masse salariale 1,2 milliard par mois waaw ngeen yaakaar ne ngeen te xam ngeen ne est-ce que xam ngeen ne suñu employé yooyu moom la ñuy comp di jox saa su nekk fay déficitu exploitation bi de dix-huit milliards parce que service public la mbokk yi Dakar dem dikk ci situation boobu noonu lañ ko fekk dette bi mu am ci ay affaire fisc yooyu rek pour te dire ko dafa bokk ci daanaka ñu daawul fay fisc quatre-vingt-quinze milliards chiffres yi may wax yëpp yu ñu consigné la teg mooy invité presse bi ak journaliste ak sénégal yi lii mooy débat bi nañu wax li nga xam ne moo yàqu ci réew mi te ñu wax ñun fan la ñuy jëlee alal ju ñu koy defaree ñu nekk ci waxtaan yooyu moo gën diversion yi ñeen ñi def nga xam ne ay jouekatu série lañu kon jël nañ ci nag ay mesures yu bëri nekk di wàññi waaye ñëpp xam nañ ne doyul nga dem fu mel ni AIBD AIBD xam ngeen euh, lan mooy budget 22 milliards waaye lan mooy recette am 7 milliards donc 15 milliards yi fu mu koy jëlee maanaam day jëndee juróom di jaayee ñett pour ngeen comprendre état moo koy compléteel 15 milliards yi ñun bi ñu ñëwee ci lu gàtt ciblé nañ ci ay contrat ba liggéey ko ba nekk di ko arrêté ci ay contrat yaa ma neex yoo xam ne amaluñu benn njariñ xam ngeen ñaata la ñu économiser réew mi ci ay AIBD képp laa wax 63 milliards 63 milliards c'est-à-dire man li may wax yëpp ci sama ministère kese la yeneen ministres yi énergie mine autre suñu génnee bu ñu waxee ngeen ngeen taf seen gémmiñ c'est-à-dire fépp fuñ jaar dañ ko cannibaliser ñoo raw cannibaliser ñoo raw ay ay kaña ci tool kon lii mooy vrai débat bi ñoom lii la ñuy bañ ñu leeral ko parce que xam na ne bu ñu jëlee assemblée bi mais dañuy installer <laughs> haute cour de la justice te xam naa ci liste bi sax am na ko ci gars yi ne xanaa kii mooy jiite haute cour de la justice bi parce que am na fu mu jaaroon ak ñoom xool leen suñu liste yi bu baax a baax léegi haute cour de la justice parce que instant yi li tax ngay gis ñenn ñi di balballu di tëb di wax xam na ne mënaguñ leen a jàpp ndax seen mbubb bi ñu am te te Macky Sall laataa muy dem daa soppi cré yi ba mënu leen topp en ce ci condition yi pour te que ñoom dañoo dañoo def seeni mbir ba pare xool naka la ñu koy maquiller encore une fois bërëc mais haute cour de la justice dina taxaw te ñoom ñëpp dinañu wuyu benn par benn kenn du rëcc ca kaw ba ca suuf parce que li ñu def nii alalu askan woowu ñoom li ñu jël bu ñu ko delloosee ñu régler problème yëpp ndax malgré situation catastrophique bi ñu fi fekk ñu ngi continuer di tenir réew mi muy dox ndax ingéniosité équipe yi ñu yore ñu leen di rendre en tout cas ñu leen di féliciter di leen encourager moo xam équipe bu finance la moo xam équipe bu économie la moo xam ministères yi ak directeurs yi liggéeyu yaxanal bi nga xam ne ñu ngi koy def parce que vraiment day ñu naan nañu réduire train de vie de l'État mais ñun bi ñu ñëwee ba léegi on a fekk réduire le train de vie de l'État moo ñu permettre ñuy continuer AIBD da nga doon fekk budget voyage mais c'est extraordinaire ce que ce que ce que je suis en de vous dire cest que dañ dañ doon fo ci alalu askan wi parce que budget voyage ci lu gàtt rek ñu def lu mat 80 millions ñun même période c'est-à-dire premier semestre 80 millions ci voyage AIBD maanaam 1er janvier ba ba ba ba 31 mars ñun avril ba août comparé à ñoom économiser nañ ñun 55 milliards millions astafurlah kon pour vous dire que. ci dynamique bi ñu nekk noonu lañ ko defee ci téléphone bi ils étaient à 19 par mois ñu réduire ci 10 millions déjà te ça va continuer encore une fois c'est ça les de débats ñoom loolu la ñuy bañ moo tax yi ñuy déposer ay recours yeeg yooyu yëpp diversion la te ma wax leen am na si ñoom ñoo xam ne gëm naa ne bëggu ñoo dem élection de ñun ñun duñu xalaatuñoo def recours parce que dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu boole leen mbër muy nu mu ko doon waxee ah seen ba nee na way juróom da leen daan boole bañ mat fukk mu làpp leen dañ leen bëgg boole ñoom ba ñu dajaloo ñii moom Dakar ak ñi doon wax ñooy chef de l'opposition ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ñooy borom Fuuta tey ñu jëw dàqatu ci liste nationale yi ñëpp la ñu boole duma dañu dañuy bëre par force ñi doon forcer seen bopp waajal seen i saak pour dugg kaso sax dañ ne leen da ngeen di bëre ba pare non day mënul ñàkk parce mbir mi dina neex de léegi nag ñoom seen problème mooy fan la ñuy campagner ak ban xaalis la ñuy fan a ah, ban fan la ñuy dugg ñoom ñoom lu ñu am ci sécurité lañ ko nar a def fan la ñuy dugg di campagne di ñëw di tànqal ñu ñi ak naan dañuy joxe xaalis xalaatuñu ko surveiller bu baax de parce que bëgguñ dem élection yi ñu def nii yëpp loolu la kii wax na ko mais fooy A4 bi ñu ne la nañ ko def A6 nga xam ne bii dañ koy xaaj kaat def ci photo bi def ci logo yeeg yooyu xanaa voté du voté rek waroon nañ ko sax mën a def bulletin unique. ñenn ñi ne non du ci daal suñu yoon am na ñoo xam ne joxuñ justificatif de dañ suñu yoon nekku ci maanaam débrouillez-vous pour trouver 7 8 milliards de plus ñi ne non. dañ ciy def photo te ñun suñu tedd liste yi xamuñu leen waa ñoom ñan la Macky Sall xamuñu ko mais problème bi mooy bëgguñu fu ñu dem gis photo Sonko mu leer nañu macha allah mu sell bi su ko defee xam na ne askan yi buñ koy jël duñ ci ànd ak sago te loolu sax mënoon na doon seen atu parce que xam naa am ñoo xam ne bëgg nañ ko boo xam ne au lieu ñu jël ko dugal ko ci enveloppe bi tam ñu jël ko yóbbaale ko pour toog seen kër mais pour vous diir que juste ñoom ci caaxaan yi ñu nekk mais bëgg bëre bañ bëre nii lañ ko mën a toppee nga ñëw ci PSD bi ma doon wax fa yi weesu c'est-à-dire ñii ñooy askan woo xam ne dañoo ñëw ne dañuy leb ci turu Sénégal 467 milliards pour tabax ay tali waaye waxuma intérêt yi de mais ñoom nee nañu ñiy gere leb bor boobu noonu maanaam ñi ko doon gere seen ay commission ak seen ay frais de gestion cent vingt trois milliards lay doon waaw léegi ñun dañoo leb quatre cent soixante sept milliards pour fay pratiquement plus de presque six cent milliards six cent quatre vingt dix et xam nañ niñ ko defee de te pour leen wan ne ay tappale la frais de gestion yi dañoo ubbi beneen compte bu bees loger ko fa waaye ñii bëgg nañu réew mi 123 milliards lan nga ci mën a def cest à diir que frais de gestion yi rek c'est 24 pour cent alors que en temps normal c'est entre 3 et 4 pour cent multiplié par cinq moo tax ñuy tëb di wax ni ñoom ñëpp di xam nañ liñ def de te d'ailleurs <laughs> am na ñoo xam ne ñi amul ñi amul titre ministre commencé nañ wuy ji ak ak ak ak leeral de. bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgul am na ñoo xam ne nag daw nañ génn waaye dinañ dikkaat bu soobee yàlla pour vous dire que rek buñ ko doon topp benn par benn nga ñëw di jënd matériel handling maanaam bu ngeen demee aéroport yéen ñi ñi fay voyager chariot yi ñu utiliser keet yooyu ñu évaluer ne huit milliards lan soxla yow ministre bi nga ne non non je vais valeur vingt trois milliards déglu leen baax li may wax te huit milliards soxla de ci matériel. waa jënd matériel pousse-pousse nga ne da nga koy def secret défense ñi dem ba fexe ba li jënd seen cachet secret défense ne ko ci teel joxe ay marché fictif avance gars yi plus deux presque léegi mu mat deux ans ku ci ko waroon na livrer entre trois et six mois am na si ñaar ñoo xam ne pën a livré guñu ko te jox nañ leen lu mat sept milliards marché fictif la ma tudd ko ci rajo bi xëy deux jours après ñu ne ma waa ji dawoon am <laughs> am na ku mu woo naan ko bàyyi sama wax sama ministre mu bàyyi ma man jàpp ma ko de li mu def laa jàpp c'est différent awma benn problème ak moom li jëntiwu ko mais suñu xaalis lañuy topp enquête baa ngi en cours te dina leer nañ kon euh, luñ leen wax ci tooxi doona yi ñu def un peu partout mën naa ne leen ne liñ leen waxul moo ëpp fuuf parce que nag dañu jël suñu temps di ko defar benn par benn kon euh, ci li ma bëgg wax mooy askanu Sénégal am na opportunité cette fois-ci comme ni ma ko waxee woon fan yee euh, keroog ci jouru set setal bi système bi moom tër nañ ko ba rey ko ba noppi suul rek a des gas ba mu xóot suul système bi laa wax de balaa ñuy génn naan maa wax ne damay rey nit ñi gas suul comme dañoo am léegi benn benn benn ay quelques journalistes yoo xam ne moom ils sont tellement tellement mécontents que da ngay fàtte ne sax ay journalistes lañ bu ñuy wax damay ragal ne seen kër yi day lâché mais dama ne système bi rendi nañu ko ba pare rey nañu ko suul rek moo des dama bëgg na ci législative yi na askan wi jóg. wan leen ne buggatuñu sax ngeen teewal ñu ci pencum ndawi askan bu waree am ay quelques députés na doon liste yi kenn xamul mais ñii normalement waruñu parce que dañoo jàpp ne ñoom war nañu mën a daw laqatu assemblée nationale am immunité parlementaire yow yàlla sagal la nga jaar fu ne nekk président assemblée nationale nekk ministre de l'intérieur nekk ministre nekk premier ministre nekk président de la république walbati ba ko bëgg a nekk député waaye kii <laughs> kii day sëmri jëmale ko wala c'est-à-dire que dafa am loo xam ne mënoo ko comprendre léegi nag wax ji leer lenn la de ndax dina ñëw campagne seen déet ñoom ñaar sax laay ndax dinañ ñëw campagne si wala ki exile woon moroomam ak ki exilé boppam ndax dinañ ñëw campagne si kon euh, dama bëgg rek euh, euh, encore une fois ci fu may daaneele ñu moi, euh, j'invite tous les patriotes. Tous les patriotes, tant il faut que ce soit opposant à Multiréum. Ça veut dire que di may les bi ñu am fim Film nii nag focus boobu Dama bëgg ngeen orienté ko dama bëgg focus bi ngeen jël listu Pastef bi di ko seppi benn par benn di wane gars yi bu ngeen ne Amy Dia ngeen wax ci moom nit ñi xam ne kii kat lii ak lii la doon def fii la jaar buñ ne Mbène Faye gars yi xam fi mu jaar bu ne Cheikh coro Mbacké loolu mooy focus bi nañu focus ñun ci la promotion danoo nos excellents futurs députés gars yeneen yi nag nan leen bàyyi fële parce qu'ils ont presque tous des cœurs brisés kon mbokk yi foofu laa doon daaneele di leen wax ne rek euh, Euh, campagne bi dina neex te nag daa am loo xam ne ñu ngi koy waajal parce que Pastef moom la mu daan doxalee lay doxalee ba léegi mooy financement wu parti politique nañ ko daan defee lañ koy defee kon na askan wi waajal na patriote yi waajal te xam ne am na lu président Ousmane Sonko ak équipe rawatina équipe des finance sumb ba togg ko ba pare ci fan yii di ñëw dinañ leen jox date jox leen lieu jox leen forma yàggatul dara nag ay fan la xawma ma ndax mat na ay bés wala ñaari ay bés gën ngaa bëri mais yaa a un très très très grand événement boo xamante ne nii ñu ngi koy waajal ci fan yii di ñëw te day rentre ci cadre financement wu Pastef may lancé nag défi ñeneen ñi nga xam ne ñoom it dañoo am seen ay coalition nañu wax askan wi naka lañuy ñuy seen campagne waaw xam naa ne sañ euh, dinañ def lu ñu am ñi ci ñi ci dof dinañ def lu ñu am pour jéem a am dara nekk député ñi ci muus nag dinañ sakkanal lañ jot yor mais dafa am solo parce que dafa am lu ñu yàgg a wax mooy financement parti politique ci réew mi faaw ñu xool ko parce que moom mooy sécurité wu réew mi am lu loi bi wax mu leer nañ ci financement wu parti politique ñu war ko déclarer donc ku fi yor parti politique ñu doxal at te déclarer woo yow ni nga ko financé ni nga ko dépensé loi bi ci boppam moo la éliminer moo la rayé ñoom nag daawuñu ko appliquer parce que daawuñu déclarer donte sax am na déclaration bu ñu def waaye yéen a ngi imaginer Pastef déclaré deux cent et quelques millions APR ñëw ne moom cent vingt et un la def mais ñi seen tappale geeg seen maquillage bi fu ne lañ koy defe donc loolu li muy firndeel rek mooy financement wu parti politique dañ ko war a saytu campagne bi nañu xool ku ne luñ ci def bu ñu paree ku ne déclaré li mu def mu leer ñun nag ndox du bàyyi yoonam nañ ko daan financé noonu lañ koy financé waat aujourd'hui que ça soit les ministres les directeur chaque mois kuñ ci nommé chaque mois tu tires directement 10 pour cent de ton salaire moo tax ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ci côté boobu waaye li ci des askan wi dinañ leen ko wax parce que fas yéene wu ñoo laal keesu état ñun naan dañ ciy politique wala dañ ciy campagne wala utiliser ay oto état naan dañ ciy campagne comme ni ñu ngi koy defee lépp luñ fi indi lu bees lay doon encore une fois ci doxalin bu yees lay doon ci cadre jub jubanti jub jubal jubanti lay doon euh, kon ma tëj ak information bi rek mooy le 14 octobre bi nga xam ni euh, dinañu lancer référentiel bi ñëpp doon laaj su boobaa nag ngeen di xam ñun fan la ñu jëm te référentiel boobu ni mu ñëwee dafa am solo parce que dañoo ñëw fekk ñi nga xam ne nii dañ doon nëbb ak nëpp nëppal jafe-jafe réew mi di nax-naxanteeg ay FMEeg yooyu bañ leen wax dëgg nga am déficit budgétaire dix plus de pour cent ñëw na cinq pour cent nga am endettement bi nga déclaré 67 pour cent fekk yaa ngi ci 83 pour cent waa gouvernement bi génn wax dëgg askan wi d'abord la ñu njëkke mooy chiffre amul te ñu ko doon wax kat xamuñu sax ñoom dèjà du ñu fay lémpo du ñu xamuñu sax fan la chiffre jóge ñu ne chiffre yi amul FMI génn daal di ñuy dëggal félicité ñu walbatiku ne dina ñu jàppale ñu ne waru ko woon a wax même Moody's note bi ñu wax dafa wàcc laataam Moody's di génne note bi ministère des finance génne na communiqué wax ne effectivement comme dañoo jooyanti naturellement comme ñu fi nekkoon dañoo waxoon ne fukk lañ am fekk juróom lañ am dañoo wax ne juróom lañ am lañu ñu manqué le fekk fukk lañ manqué le ñun ñëw nañ wax dëgg bi naturellement loolu kay benn case booy remplir la day calculer wu automatiquement donc yow sa sa sa euh, sa note dina wàññeeku te loolu dañoo defaat communiqué leeral ko laataa sax mu dis di wax information bi di ko wax ñu bëri ci communiqué bi lañ ko gisee li mu firndeel mooy dañoo ñëw ci transparence wax lii am kon ginnaaw bi ñu waxee loolu yëpp ba pare nag fii la ñuy ñëwee nag daan ne ay na fii la ñu jëmee réew mi de manière très phasée nag moo xam deux mille vingt cinq deux mille vingt neuf moo xam deux mille vingt cinq deux mille trente moo xam deux mille vingt cinq deux mille cinquante te ma wax leen je le lance à tous les jeunes tous les cest à bu ñu génn bu ñu dem fenn nañu des ci réew mi parce que réew mi dinañu ko defar ndax ñun. juróom fukki at jële wu ñu fi de incha allah ay ndaw lañu te dañoo fas yéenaa liggéey ba nga xam ne ku bëgg a opposé wu di nga sonn de pour am argument système bi moom ala kulli xaal bii mooy seen dernière élection tàggatoo bu ñu leen suulee ba ñu dem laa nag la ñuy taxaw xëy na boo moytuwul day mel ni parti unique moo fi am parce que yaakaar naa ne opposé wu ci ci mim réew dina du yombati kon ñu ngi leen di digg daje. le 14 incha allah askan wi xam bu ko defee nag eh, ñi doon laaj ñun la mooy suñu projet ak fan la ñu jëmee réew mi ak yu ni mel yaakaar naa ne dinañ ci am firnde yu leer nañ kon mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah